fukki fan ak juróom-ñett weeru safaar doon bés bi nga xam ne ci la Serigne Touba Cheikh Bamba woote ngir ñu santale ko sunu borom muy màggaluk Touba màggaluk Touba nag bu ko wax ku ne xam li nga xam ne moom lañ ci taamu di gis muy njànguma alxuraan xasaayit gan ñi berndeel leen loolu nag jamono ji mbokk yi ci la ñu toll ñu toll ci waxtu wu am solo waxtu bi nga xam ne ni ngeen ko gisee nii mbooloo yi fu ne ñu bawoo fa ñu ngi fii jamono ji ni ngeen koy gisee wetuk sowu gi jumaa ji bunt bi wetuk sowu gaa ngi nii ngeen jàkkaarloog jumaa ji nii nga xam ne noonu ngeen ko gisee mbokk taalibe yi fenn fu ci ne ñu jóge fa ñëw di ànd ak ñun ci li nga xam ne mooy bés bi fii ngeen gis mooy Daaru Xuddoos mbeddum Daaru Xuddoos maa ngi nii ngeen jàkkaarloo ak ñun ñu nekk kon ci bés bu am solo bés boo xam ne bésu cant la bésu cant goo xam ne sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba moo ko woote woon ngir ñu santale ko sunu boroom sëriñ Touba moo woote woon ngir bés bi ñu santale ko sunu borom. moom nag la mboolem taalibe yi wuy si ginnaaw ba sëriñ Muntaxa di xalifa général des Mourides joxe ndigal woo mboolem taalibe yi ngir ñu dundal bés bii mu doon taxawaay bu am solo boo xam ne nemmeeku ngeen ko ci mbokk yaakaar naa ne kenn ku ci ne lii yow yaa ko mën a gisal sa bopp yaa ko mën a wanal sa bopp nga gis ay xale ay mag ay góor ay jigéen kenn ku ci nekk fa nga bawoo dikk ngir dundal ci bés bii nga xam ne bés taarix di jàpp la bés boo xam ne kenn du ko fàtte mu doon bés boo xam ne bu am solo la ah, ci noonu rek xam naa ne ah, mbokk yi li ñuy yëg ci seen xol waxtu wi li ñuy yëg ci seen xol jamono ji ah faaw rek ñu jéem a xool ñenn ci ñi nga xam ne ah ñëw nañ ci dëkk bi ni ñu koy dundee la nga xam ni tey mooy bés bi nga xam ne moom moo di màggal gi yaakaar naa ne ni ngeen ko nemmee koy tam lu jëm ci wàllu ka matuwaay yi nga xam ne sëriñ bi joxe na ndigal ngir ñu sàmmonte ak lu ni mel loolee dafa doon loo xam ne du am solo la ñu ci ànd ak yéen nag ngir lépp loo xam ne doon na li nga xam ne moo aju ci wàllu taxawaay bi lépp lu aju ci wàllu ka dem ak dikk bi loolu doon ay matuwaay yoo xam ne ñii di organisateurs yi doon ñi nga xam ne ñooy taxawu bés bi def nañ ci liggéey bu am solo def nañ ci liggéey boo xam ne bu mucc ayib la lay firndeli nag mooy tey nii nga xam ne noonu la ñu gisee ne taxawoon nañu ko lii nga xam ne moom moo di màggaluk ren gii di 18 safar 1442 euh, kon ñuy fàttali rek ne tey di talaata juróom-benn fan ci octobre atum 2020 mu doon jotaay boo xam ne nag. organisation bu mucc ayib lañ ci nemmeeku mbokk yi loolu ñu mën a gis ne organisation boobu lay firnde la mooy tey boo xoolee comité bi nga xam ne kon moom mooy commission comité d'organisation bi te booba Serigne Bassirou moom Serigne Abdou ni nga xam ne noonu la piloté liggéey bi ni nga xam ne noonu la taxawoo mbooleem commission yi nga xam ne ñoom ñoo séq jotaay bi ba ren jii sax ñu yokk ci beneen commission boo xam ne ak comité d' alerte de veille et d' ko tuddee ndax xam ngeen ne màggalu ren gi dafa yemboo ak mbas mi nga xam ne moo lëmbe réew mi lëmbe àdduna loolu nag tax itam euh, fii doon bërëb boo xam ne dañu fay faje aajo ñoo am ci njot lu rafet lool ne lii bu ñu ci jógee lii nga xam ne moo lëmbe réew mi lëmbe àdduna danañ ko fàtte ba faw ñuy ñaan rek ci daraje borom bés bii nga xam ne moo woote cant gi ah ñu sant ko bu baax a baax mu mel ne nag kon ni ngeen ko gisee mbokk yi ñu ngi nii kenn ku ci nekk ak fi nga xam ne foofu nga jëm kenn ku ci ne ak lay sa taxawaay service boo gis nag kenn ku ci nekk bëgg nga fees ci lii nga xam ne moom moo di liggéey bii ñu gis mu doon taxawaay boo xam ne kon taxawaay bu am solo la bu dañu ko ci nemmeeku saa su ne ci fii nga xam ne moom mooy ci dëkk bu sell bi di Touba gis ngeen ko ñi ci ràngee ña nga noonu jëm ci jumaa ja xam naa ci kanam tuuti incha allah danañ def nañ ko daan baaxoo ànd ak yéen dugg ci biir jumaa ji incha allah mboolem xabru yi fu nekk ci biir ziar yi rang yi mbokk yi fa nekk ñu saafoonteeg ñoom waxtaan ak ñoom incha allah ci kanam tuuti rek ah, da ngeen ñu fa gis ca biir ndeem soob na suñu borom waaye nag jamono ji dañuy ànd ak yéen gunge leen gunge leen ci mbedd yi nga xam ne ah, fi la ñu nekk jamono ji nag ah, ñu ngi ci buntu fi nga xam ne kon moom moo di pale bi maanaam njiitu réew mi bu dee dikk ci dëkk bu sell bi taax mi ngeen di gis ne kon foofu mooy fi nga xam ne fi lañ koy faral di dalal ah saa baay tur bi naka la. aleykum wa rahmatullah. ñu koy wax sëriñ Idrissa Fall. alhamdulilah allazi azana li haza. li kunna lil muxtadiya lawla adallah. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul xuqdata min lisaani yaxfaw xawli bismillahi allazi la yadurru ma al asmi shay'in fi l ardi wala fi sama wa huwa sami alim jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf Sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom nag mi ngi nii sëñ Touba yàlla da koy defal circonstance bu jafe bu ne yàlla da koy jox euh, solution feebar bi euh, yàlla tudd na ko ci arxuraan juróom-ñaari yoon boo demee ci arxuraan suratul euh, suratul nisaa yi suratul yaasin fii mu mubiin boo dégg bu naaw mubiin bu ne dina doon saytaane wala lenn lu ànd ak iblis tey ñëw tey doon loraange yàlla suñu borom tudd ne am na peuple yoo xam ne dama leen bëggul punir ba ma leen bëggee punir nag amu fu ma leen jaar ndax mooy gi bari na mooy yàlla gi bari na avertissement yi bari na mu wax ne man am na ñoo xamante ne mënumaa ci di leen liggéey loo mu am iblis mu jaari fa ci ñaari taxawaay benn jaara bi mu ne saytaane dina liggéey pour yàq yàlla di defar saytaane di yàq mu ne leen nag dina leen yabal ay ay loraange yoo xam dañuy jóge ci kaw jugee nag ci jugee jugee ci kaw noonu la ko Alxuraan définiré dañuy juge ci kaw bu ñu jugee ci kaw nag doon ay junut ay soldaar di di di di lor waaye nag suñu borom waxoon nag benn baat ci Alxuraan ne inna inna ibaada laysa laka aleykum bi sultaanin mu ne loraange dina am ñu fay ba sëñ Tuubaa nag bana ko fi moom dafa wax ne moom borom màggal gi dafa wax ne ker ba muy tàmbali liggéeyal yàlla auzu billaahi mina seytaani rajiim inni bika wa zurriyataha min aseytaan rajim rabbi a'uuzu bika min hamasaati sayaatin wa a'uuzu bika rabbi an yaxduru mu wax ne yàlla tàqale na maag fii si si njaarem ak sama yoon bii mission boo xamante ne dara luy lore dootuma jege man mu wax ne jumaa ji bu ko kenn tëj na taxawal juróomi waxtu yi wa dabbaten maskani taallumi mu ne sama jumaa ji jaamu yàlla moo tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu koy ubbi di ko ci taxawal mu waxaat loraange moom yàlla dàqal na ko ko ba pare waaye nag feebar bi am naa yaakaar ne dem na ba pare maa ngi ñaan adduna bi travers les cinq continents ci barke siñ Touba yàlla na yàlla def ci adduna bi yëpp jàmm may nit ñëpp jàmm ñi yor réew yi. ñii seetaan bëgg na ñoo xam kii wax ak ñi yor réew yëpp yërëm naa leen président ci adduna bi yërëm naa leen kenn ku ne fi mu nekk nii yàlla wan na la boppam kon jàngaat ci. jàngat ci nga jaamu jiwaat yàlla te ragal yàlla te te wattu arxuraan te wattu arxuraan yàlla nag ñaari taxawaay la wax inal ba balaawun xasanaatin mina sayiaatin balaa bu ñëwee la cay topp rafetal la war a doonaat muy ku ma mën a doon ak nga mën a jiite leçon la ci yow kon Serigne Touba ñu ngi koy ñaan Mbàkke ni màggal gi ni màggal gi ni ñu màggasee amul benn dëkk boo xamante ne nangu nga ndajaloo Serigne Touba Serigne Touba yàlla may na ko ndam ci barke bis bi boo xamante ne àdduna bi yëpp um, bis bisu mbégteem la yàlla na doon feebar bi am fii ni ñëpp delluwaat ci jàmm alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim malik yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka na jërëjëf sëñ Touba sëñ Idrissa Fall bëgg sëñ Touba rek la ndeysaan sëñ moom ngeen doon déglu noonu mu doon kàddu yi am solo noonu mu ko waxee euh, ñun ñëpp euh, euh, ah, am ñun ñëpp am wax dëgg yàlla xel mu dal ñun ñëpp am xel mu dal waaw ñun ñëpp am xel mu dal ci li nga xam ne moom la ñuy gis am yaakaar itam lool ci lii nga xam ne ah, moom mooy mbas mi nga xam ne moom moo lëmbe àdduna mu jóge fii loolu nag am nañ ci xel mu dal lool te yàlla na ko sama borom def mbokk yi kon yaakaar naa ne yéen a koy dund en direct en direct ci 2STV en direct ngeen koy dund ci 2STV lii nga xam ne mooy màggal gi nii nga xam ne gis ngeen ko fu ci ne mbokk yi jóge fa fu ci ne taalibe yi bawoo fa ngir màggal gi nga xam ne moom la ñuy amal mu doon loo xam ne lu am solo la loolu doon taxawaay boo xam ne ku ci nekk tey li nga yëg ci sa xol ngir la génne ko day xaw a jafe day xaw a jafe lool loolu tam doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ci li nga xam ne mooy jëm ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci taxaw gis ngeen ko mbokk yaa ngi nii ñenn ñi ñi ngi dem di ziyaari ji barab yi moo xam jumaa ji moo xam yeneen barabu ziyaar yi ñenn ñi dem nemmeeku ci seen ay mbokk ñenn ñi kenn ku ci nekk ak la nga xam ne moom ngay taxawe ci li nga xam ne kon moom moo di bés bi doon loo xam ne lu am solo la loolu nag dafay doon loo xam ne lu jara sant la lu jara sant sunu borom ndax boo gisee tey euh, engouement bi nga xam ne moom nga gis taalibe yi taalibe yi xoolal naaju li muy tàng fi mu toll nii mi ngi tàng jër mi ngi tànk jéer li nga xam ne kon moom moo di naaj wi nga xam ne kon ci la ñu nekk jamono ji waaye terewul ñii di taalibe yi kenn ku ci nekk taxaw nga wane sa dogu waaye tam wane sa xër ci kii nga xam ne moom mooy Serigne Touba Cheikh Bamba ci lii nga xam ne may nañu ko tey doon ngëneel doon tawféex mu doon ak cant goo xam ne da ko woote ngir ñu santale ko sunu borom kon tey ji wuy si nañu tey wuy si nañu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi wuy si nanu ci ni nga xam ne noonee la ko sëriñ bi sàkkoo woon noonee la ko sëriñ Muntaxa mu sëriñ Basiru ndeysaan wootee waaye tam nag wuy si nanu ni nga xam ne noonee la ñu ko tàmm di ko gisee mu doon mbégte doon bànneex ndax tey bésub mbégte la bésu bànneex la bésu cant la boo xam ne kon euh, gis ngeen taxawaay bu am solo bi nga xam ne ba léegi ñu ngi koy fàttali sëriñ Bassirou moom sëriñ Abdou Khadre démb rek ci guddi ndeysaan euh, ñu ngi gis délégation bu bawoo Tiwaawan ndeysaan ñëw euh, waxtaan am solo woo xam ne jot nañu ko fi def mu doon euh, rattaxal diggante boo xam ne ni ñu ko waxee euh, tey bu ñu dégloo ki nga xam ne kon mooy Serigne Sidi Amath mi nga xam ne yëkkati na ko fi ci ay kàddu muy kàdd yoo xam ne lépp jokk bokk la lépp rafetal la lépp wane ak bennoo la ndax diine ji benn la diine ji benn la kenn mënu koo xarñaar kon mu doon ka nekk Tivaouane ka nekk Touba Laayeen Njaasaan fu mu mën a doon Yoof ba ca ña seen fu mën a doon lépp benn la kon dafa doon loo xam ne lu am solo la lu ñu sant suñu borom rafetlu ko lool waaye itam di rafetlu taxawaay bi nga xam itam kilifa yi taxaw nañu ko ci wax dëgg yàlla ak mat gi nga xam ne def nañu ko ci ndax itam euh, am réew dañu koy waxtaan am réew dañu koy péncoo lool nag kilifa yi nekk ci dëkk bi xam nañu ko lool moo tax diir bi nga xam ne mbir mi xew xew na ñu woote ñu woote ngir lépp loo xam ne doon na ay ndénkaan tegtal ñu sàmmonte ak lu di mel loolee mi yaakaar naa ne ñu ngi koy gis saa su ne Serigne Mountakha joxe ci firnde fépp fu ngeen ko gis rek la nga xam ne kon moom moo di mbir yooyee mi ngay joxañ yoon wi nga xam ne kon foofee lañ war a jaar mu doon loo xam ne kon lu am solo la mbokk yaakaar naa ni ngeen ko gisee nag ah, jamono ji ñu ngi toll ak résidence Khadim Rasoul bu Touba. daanaka ah, fi mu toll nii ah, ñu ngi ci buntu bu mag bi soretuñu ko mooy fi nga xam ne ñi xaw a miin Touba tuuti mooy mooy euh, fii nga xam ne mooy dox ci euh, euh, boori yi kon daanaka mën naa wax ne daal yoonu Mbàkke wi ñi xam ñi nga xam ne xam nañu jumaa ji mooy bu fekkente ni si da ngaa jógee ci côté Daaru Xuddoos ñëw. jubal ba jeexal koñ bu njëkk bi yoon wi nga xam ne kon moom moo jëm côté mbake foofee nga xam ne moom moo ci gédo bi ci buntu résidence Khadim Rasoul bi nga xam ne kon moo nekk ci jumaa ji fii la ñu toll jamono ji ngi gis ko ni ngeen ko gisee mbokk yi kenn ku ci nekk taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ci liggéey bi nga xam ne kon kenn ku ci nekk yaa ngi ko cay liggéey kon xam naa ne rek euh, bu fekkente ni si euh, mën naa gis ñaar wala ñett ñoo xam ne ñoom itam lañuy ñuy yëg jamono ji ci euh, bés bi la ñuy jamono ji ci seen xol la nga xam ne moom la ñuy yëg fi mu toll nii ni ngeen ko gisee maa koy wax sànq organisation bi taxawaay bi gis ngeen ko buntu résidence gis nga ko la sécurité ñoom ñu ngi noonu la police ñu ngi nii taxaw gis nga ko kenn ku ci nekk foo mën a dem foo mën a dem euh, noonu nga koy gisee taxawaay bi nga xam ne euh, moom la ñu fa taxaw ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci li nga xam ne moo aju ci wàllu wi nga xam ne moom moo di euh, maggal gi nga xam ne kon ci la ñu nekk muy màggal édition 2020 bu Touba kon mu doon loo xam ne lu am solo lu ñu ngi koy dund jamono ji fii nga xam ne kon fii la nekk ci Touba euh, mu mel ne kon euh, euh, sëñ bi yaa ngi en direct ci 2STV tey jamono ji ñu ngi ci yor-yor màggal gi lan ngay yëg sa xol fi mu toll nii. yaa tudd Pape Seer Mbaye. waaw waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu yàlla baax di julli si yéen bi sant sëñ Touba. di ñaan sëñ Mountakha mu yàgg fi lool. barke Seex Xadim ñu ngi leen siyaare baax tawfeex seen seen liggéey. di ñaan su leen si kanam barke Seex Xadim ñu yàgg ko teew baax a baax. di ñaan tawat ji si adduna wi su borom jëlee ko barke Seydou Khadim ngeen jëf damaa ne si yoon nag damaa ne si kër jërëjëf sant ko gërëm ko bu baax a baax mbokk yi kon ñu ngi noonu en direct ngeen ñu topp ci la 2STV la première chaîne de télévision privée du senegal mu mel ne mbokk mi moom tam ah ah sëñ bi yow foo foo jógee. man salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi jógee Thiès. Thiès nga jógee. ah Thiès waaw tudd naka. Xaadim Rasul. ah sëñ Xaadim Rasul. ah yow yaay borom bés bi. Ah, waaw waaw waaw waaw waaw. tey looy yëg sa xol jamono ji. man kay fi mu toll nii sant yàlla rek sant rek sant rek ndax bis bi loolu la ginnaaw loolu la ci wone sant boromam ñoo ngi sant di am yëg-yëg yoo diggante bi ma wax yow ñu sori nañ daal xam nañ ne maanaam Tuubaa nii boo xoolee rek xam ne Serigne Touba moom bokk ci daal moo tax ñoo ngi sant ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ci ñu moom ci lim ñu digal moom borom Touba di di jul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërëm Serigne Touba Xaadimu Rasuul maanaam ñoo ngi sant daal ñoo ngi sant baax ndeysaan sant waaw waaw aca bu la neexee bis bi sant suñu borom xam naa ni ba ma dalee dem fu ne. li ma gis Touba Mbacke gi mhm. fii rek laa ko gis ca kaw ca kanam. yow foo dëkk wala xéewal yi doy na lekk ba suur naan ba màndi. Ah. dal di xel dal na fi. suñu borom xéewal yu nu sént ci moom yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp lépp a doy lépp a ne gaañ. mu ànd ak wér ak fekk yàlla na ngeen ko yàggata. foo yow man Kees laa dëkk maa ngi kontaan bu baax. di wuli sama mbégte man faatu Gueye laa tudd. soxna Fatou Gueye sant koo gërëm koo bu baax a baax ah mbokk yi yaakaar naa ne di ngeen koy dundee en direct jamono ji ci la 2STV loolu nuñ koy waxee rek saa su ne nag euh, gars yi di jéem a roy waaye nag euh, ngir dabe nga ah, yombul de ndax euh, yaakaar naa ne lii doonul loo xam ne yéen a ngi koy gis fii rek ngeen koy gisee te nii mu amee fii itam léegi incha allah rek euh, bu ñu jógee ci mbedd yi ndax faaw ñu gunge mbokk yi nga xam ñu ngi ci mbedd yi ñoom itam amal seen ziar waaye itam war xool yenn barab yi gis nga kenn ku ci nekk bëgg am fàttaliku tey boo gëstoo sa ginnaaw nga xool image yi kenn ku ci yaa ngi yor sa appareil war a photo wu boo demee ne màggal ga laa nekkoon jumaa jaa ngi nii kenn ku ci nekk gis ko fii la ñu ne doon na loo am lu sam solo waaye Modou Modou nga kenn Modou fo la waaw foo foo dëkk maa ngi bàyyi ko Espagne maa ngi dëkk Dakar ah, maa ngi dëkk Bargny waaw Dakar man Mouhamed Mboub Espagne nga nekkoon waaw Espagne laa nekkoon kañ nga ñëw mais xaw naa fi yàgg nag ah, ah. waaw xaw naa waaw bon xanaa baax na parce que fii bon daanaka bi ma fii ji gëjal léegi war naa def fukki at ak ñeent. yàgg na lool mais soo ko ñëwaat màggal waaw. ma jëw ànd ci ak mbégte bu rëy rëy rëy tey billaay wallaay gëj naa fi trop noo sant naa ko bu rëy rëy billaay wallaay billaay wallaay xaw ma sax nan laay wax quoi instant bii billaay wallaay sant naa ko bu baax man li laa namoon xam nga ko toog fukki at ak ñeent saa waay xam nga ñëwul fii ay at yu bëree bëri kon maa ngi ci profité waale xam nga di nuyu waale Modou Modou yi ne Espagne Italie France ñoom ñëpp ñi bëggoon a njëw hmm. ah, bon yàlla def xam nga seen njëw xam nga rek hmm. ah xaw a am ay ay kii hmm. bon ndax ab corona bi waaw donc bon ñoom ñëpp maa leen di nuyu maa ngi leen di ñaanalaale maa ngi leen di waaw yàlla def jàmm daal waa yàlla jeexal fi corona bi nag ñëpp mën a teewaat ak jàmm incha allah. jërëjëf sant ko gërëm ko. waa kon ni ngeen ko gisee rek mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ba tey ci la 2STV. la première chaine de télévision privée du Sénégal ni ngeen ko gisee ñu ngi ci euh, màggaluk Touba tey kon di may fàttali juróom-benn fan ci weeru octobre atum 2020 fukki fan ak juróom-ñett ci safar mu doon kon euh, bésu cant gi nga xam ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba moo ko woote woon ngir ñu sant le ko sunu borom ni ngeen koy gisee jamono ji nag euh, ñi nga xam ne xëy na miinuñu Touba. waaye ñu koy dégg mbedd bi ci sunu ginnaaw ngeen di ko gis mooy mbedd bi jëm kër Serigne Fallou ngeen ko gisee boo ko continuer ci kaw ca ngay dem ci euh, armée yu njëkk yi kon yaakaar naa ne lii yëpp ngir gën leen a euh, xamleeg gox bi gën leen a xamleeg euh, dëkk bi gën leen a wanle ak màggal gi ak cant gi lépp doon loo xam ne rek taw féex la ah mu mel ne kon sa saa baay bi laa bëgg a jël saa baay bi baay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi lay. Baye foo jógee màggal si. xanaa Dendey. ah Dendey. yëmbal Dendey Dendey. Dendey waaw kër sëñ Modou Xabaan waaw. waaw yow damaa kër sëñ Modou Xabaan nga. waaw waaw xoolal kii. Euh, tur wi naka la. Gora Diop. waaw tey lan nga ñu mën a wax ci màggal gi li nga yëg ci xol bi. ah li ci nekk mënu ma ko wax léegi. mënu ma mënu ma ko wax léegi. maa ngi si tuuti rek. ah walaay mënu ma ko wax léegi. tuuti rek. xol bee fees xam naa. ne kay. xol bi mënut wax dara ndax kii rek. billaahi waaw waaw. ndeysaan. Hmm. sëñ Mountakha loo koy wax. di ko gërëm di ko ñaanal mu yàgg fi lool. wallaay ndeysaan Mbàkke. te hmm. ak njaboot gi. wallaay ci kàttanu sëñ Tuubaa. wallaay barke maam Cheikh Ibrahima. jërëjëf waaw xale Jurbel. Jurbel nga dëkk. waaw nga اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا وانصرنا على من عادانا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد